Yeah, I'm with him every time. You know that's my life. Yeah. xam seen góor di leen commandel foog seeni commentaire talent booy ci sama sës baar ku fi rarement commandé ma nëgg you know laata bébé sama temps show. Like Millie Million flow. Exclusive. You know what time it is. yeah, man. Nippy and my nigga Oz the best, the million flow, nigga. sir. Oz the best, sir. Yeah. Wait, wait, wait. Gotta send exclusive. Pour us. Mais us aujourd'hui, gis nañ que ni xam nga yaa ngi defoon benn featuring Deep Donc qu'est-ce que ça fait aujourd'hui xam nga que ar nga sa grand. Ma koy defal plaisir parce que Deep Doors ñëpp xam nañ ko ndaanaan la. Xam nga après defal moom sama plaisir la beneen affaire la donc moo tax ma koy def ndax. day doog man sama yëpp la yeah man it's gonna be crazy. yes sir yes sir. that's the best. Bread up on the clock, you the first and never lie ability, me, I'm in the business. Bitch, you know, without me, niggas, no forgiveness. Write a truth in my papers, positive proof for your haters. Let me teach them alphabetical, slaughter like papers. Yeah. Every time we do it right, nigga. You already know. Pray that we day, I stay alive, nigga. Here we go. Wanna make my mom proud, reason why we do it, bro. Yeah, yeah, yeah. Do it, bro. Yeah, yeah, yeah. Thumbs up. Y'all seen exclusive. ah. fan nga moment Deep Dose ah. donc Deep Dose gars yi xam ko un super ndaanaan ci pop sen euh, mais Deep Dose rare na ah. ça fait longtemps que déggatuñ mais là on dirait qu'il vient de xam faire une vidéo avec un grand retour ma may Deep Dose je seetlu la may. Right Jackson exclusive xam nga uh, with my man Big gis nañ que ni xaw nga raar mais ñëwaat nga ak euh, nouvelle vidéo en featuring avec As The Best lan moo waral retour bi nga ñëw rek bëgg ci teg vidéo bu tel nii quoi. waaw waaw xam nga comme ni nga ko waxee ah ay years ñu ngi doxuñu doon doon doon job affaire xam nga nekkoon ci ay business xam nga soxna si et tout donc am na yoo xamante ne priorité la woon nga def ci live bi mais nii nii ñëwaat nañ xam nga benn featuring ak As The Best bees benn benn gain boo xamante ne instant bi mu ngi def euh, mu ngi wane boppam ci ci ci milieu hip hop bi parce que Sénégal dañoo manqué ay featuring quoi a du ñuy vidéo featuring yi donc moom moo tax ma ma def premier single bi ma def ko avec As The Best c'est un gars bien quoi yeah. alors Deep Dose on voit que da nga ñëwaat indiwaat leneen xam nga donc lan moo waral retour bi carrément ak sound bi nga xam ne yaa ngi ko def qu'est-ce que tu veux montrer quoi da nga bëgg a wan gars ni yaa mu ngi noonu mu ngi noonu. waaw dama bëggoon gars yi parce que gars yi dañu lay kaañoo la boo takkee jabar après affaire xam nga <laughs> moo tax. donc di leen wax ne affaire yi fii la nekk. donc boo dégloo sound bi di nga xam ne xaw na am différence tuuti ak liñ xamee di dose carrément ko mooy gars projet bu nekk ak. cible am projet bu nekk ak maturité am quoi donc bii nii dañuy essayer def plus de mélodie yi xam nga mooy loolu jéem fecc loolu gars yi tuuti. Oh, donc. lan la track bi di wax c'est quoi Ego Trip la. Hmm. Euh, featuring ak As the Best you know la tudd. you know you know you know what I'm able to do yow xam nga li ma xam nga li ma capable pour def quoi genre côté flow côté rhyme côté technique donc loolu la ñuy bëgg a woon gars ci ci ci son bi quoi. yeah you know. You know. Let's go, Featuring bro. As the best, Yatin Exclusive with my man, DJ The Voice Killer, the number one DJ in town. Yeah, what's up? Yeah.